yi ñoom nag ki leen di tàggat di dalik fukk ak benn yii la wóolu taxawaayam nag soppiwu ko 4-3-3 bi ñu ko xamee moom la indiwaat tey jii Livakovic moo nekk ca kang ya défense ba Lovren moo fa nekk feggoo fa ak Vardiol latéral gauche Sosa latéral droite Juranović ca digg ba nag Marcelo Brozović moo fa nekk Mateo Kovacic Luka Modric ca attaque ba Pasalic moo fa nekk Kramaric ak Ivan Perisic fukk ak benn yooyu la Dalic woolu ngir ñu depart jàkkaarloo ak Argentine ñu jógee ci équipe nationale bu Croatie dem ca équipe nationale bu Argentine ñoom ki leen di tàggat di Scaloni fukk ak benn yii la wóolu waaye taxawaayam nag soppiwu ca dara muy 4-3-3 ca Kangya Emiliano Martinez moo fa nekk ca défense ba Christian Romero moo fa nekk feggoo fa ak Otamendi latéral droite Molina moo fa nekk latéral gauche Tagliafico ca digg ba nag Rodrigo de Paul moo fa nekk feggoo fa ak Enzo Fernandez ak Paredes ca attaque ba Mac Allister moo fa nekk Lionel Messi ak Julian Alvarez fukk ak benn yooyu la Lionel Scaloni wóolu ngir ñu jàkkaarloo ak Croatie file ak ay minutes yu ndaw la nag mu nekk demi-finale bu njëkk soxal coupe du monde deux mille vingt deux match boobu sax bu jeexee ak xibaar yi nga xam ne coupe du monde bi la ñu ko jagleel dinañu ci ñëw nu mu gën a yaatoo ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ba ci kanam ak xibaar yi nga xam ne coupe du monde bi la ñu ko jagleel.